sëriñ Modou Assane Fall sëriñ Modou Assane faal mi ngi feeñ jamono ci atum 1897 ci dëkk bu ñuy wax Ndiék Fall di doomu soxna Assane Diop ak sëriñ Modou Absa Fall moom sëriñ Modou Assane Fall nag bi mu feeñee jamono ci atum 1897 ci dëkk boobu nag di Ndiék faal di doomu soxna Assane Diop ak kii di sëriñ Modou Absa Fall am na nag ñu bokkal soxna Assane Diop ak kii di sëriñ Modou Absa Fall ñu mën caa ràññee sëriñ Yoro faal ibnu soxna Assane Diop ibnu sëriñ Modou Absa Fall ak sëriñ Makhtar Assane Fall ibnu soxna Assane Diop sëriñ Moodu Absa Faal soxna Kumba Galo Faal bintu soxna Asan Jóob bintu sëriñ Moodu Absa Faal soxna Assa Faal bintu soxna Asan Jóob bintu sëriñ ab sa Faal ak moom sëriñ Moodu Asan Faal ibnu soxna Asan Jóob ibnu sëriñ Moodu Absa Faal moom sëriñ Moodu Asan Faal nag ñeent nag la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy juróom muy ñaar ñu góor ak ñaar ñu jigéen laataa ñuy ñëw sax ci njàngum sëriñ Moodu Asan Faal mi ñu wax leen dëkk boobu mu feeñe jamono di njiig faal maamam ju ñuy wax sëriñ Mayoro Ndak Kebe Faal mooy ki ko 96 dëkk boobu nag di njiig faal fanweeri kilomètre ak juróom nag moo dox nag ci digganteem ak Louga loo mu bokk itim nag ci suuf si nag di njàmbur sëriñ Mayoro Ndaa Kebe Faal moomu nag moo meññi nag ku ñuy wax sëriñ Sayar Anta Seck xujja Kumba Faal sëriñ Sayar Anta Seck xujja Kumba Faal mii moo meññi ku ñuy wax sëriñ Maxtaar Kumba Galo Faal sëriñ Maxtaar Kumba Galo Faal mii moo meññ nag sëriñ Cheikh Moodu Absa Faal sëriñ Cheikh Moodu Absa Faal mii nag moom meññi sëriñ Moodu Asan Faal mii nag ñuy waxtaane tey jii waajuram wu jigéen nag di Asan maa anta jóob la sëriñ moodu maa anta jóob nag jàngalekatu alxuraan la woon nitug suñu boroom la woon ku ñu nawoon la itim ci tund wii nag wala ci dëkk bii mu goroon nag di kër maa anta jóob ba tax na itim nag nekkoon na jàngalekatu alxuraan bu mag a mag moom maamam ji ndax jàngal na ku ñuy wax sëriñ mën lamin gay firdawsi ak sëriñ moodu absa faal mii meññ sëriñ moodu asan faal mi ginnaaw bu sëriñ ab sa faal jàngee alxuraan nag ci kër maa anta jóob mi ci loxoy nag sëriñ moodu maa anta jóob mi ba mu ak jikkoom nag kii di sëriñ Moodu maa Anta Jóob mii nag naw ko ba yëkkati woon doomam ju ñuy wax nag soxna Asan Jóob jébbal ko ko soxna Asan Jóob moom nag moo meññi taawub sëriñ Moodu Absa Faal bii ñuy wax sëriñ Moodu Asan Faal sëriñ Moodu Asan Faal moom nag bi ma tee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ Moodu Absa Faal nag moo ko jàngal alxuraan nag ci dëkk boobu mu feeñe jamono nag di njiig faal ginnaaw bu mokkalee alxuraan itam ci loxoy waajuram waajuram itam moo ko jàngal nag lii di xam-xam ba mu géeju lool itam nag ci wàllu xam-xam ginnaaw bu mu géejoo ci wàllu xam ak alxuraanul karim waajuram nag ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ci ci dëkk bu sell bii nag di njaareem waajuram kat ci mag ñi sëriñ tubaa xaadim rasuul defar ci la bokk moo tax mu juloon doomam ji nag ci jébbal ko ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ngir doomam ji kat am moom li mu am keroog nag bi mu koy jébbal ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ci 1915 rakkam ju ñuy wax sëriñ ma yoro nag la boole woon jébbal ko ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul rakkam jooju génnee àdduna cheikh mamadul moustapha mbàkke itam bi mu toogee xalifa da koo indi itam nag ci dëkk bii nag di daaru nahim wéel ko nag mu nekk nag ci daaray kaamil nag ji amoon nag ci daaru nahim ci daaru nahim nag ci loxoy cheikh mamadou moustapha nag la nekk ba ni mu toogee nag ñaareelu xalifa sëriñ moodu absa faal ginnaaw bu mu leen boolee jébbal ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul ci njaareem sëriñ tubaa xaadim rasul nag mi ngi doon xamal sëriñ moodu absa moo des nag ca ga mu di ko xamal ne nag seen rakk ju ñuy wax sëriñ maxtaar faal moo fa des waaye nag tuut tànk la seexul xadim nag doon xamal sa faal danga nga bàyyi nag ma yoro mii mu nekkal la fi te nga jël Modou Assane Fall mii nag yóbbaale ko nag ci dëkk boobu nag di Ndiéeg faal mu yor la Serigne Touba Xaadim Rasul nag mi ngi doon xamal Serigne Modou Assane Fall di ko wax ne soo demee na topp ci sa ginnaaw waajur wa lépp lum la digal nag nanga nga ko def lépp lum la tere nag bu mu la ca séen soo ko defee da dang ma noppal te na nag su boobaa nga xam ne sama ndigal nga fa nekkee te lépp loo waroon a am itim nag da ko am loolu moo waral nag kii di Serigne Modou Assane nag desul ci loxoy ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasul ci njaareem mu àndaat ak waajuram nag ñëw nag ci dëkk bii nag di Ndiéeg Fall ginnaaw bu mu ñëwee njiig faal nag waajuram nag di sëriñ Modou Absa Fall dafa faboon nag juróom-ñaari pénc yi nga xam ne nii ñoom ñoo bootu nag ci njiig faal jébbal ko doomam ji nag di sëriñ Modou Assane Fall ngir mu jiite leen ba tax na waajuram nag ci tund woowu itam nag la ko bàyyi woon képp koo xam ne nii génn na àdduna mu dem taxawu ko képp koo xam ne nii am na ngénte wala céet itam nag mu dem taxawu sa bis ba ñaanal la képp koo xam ne nii itam am nga ay jafe ca tund wa sëriñ Modou Absa Fall doomam ji di sëriñ Modou Assane nag la fay yónni lii di autorité coloniale yi sa Fall mi sëriñ Modou Assane Fall moo ci doxoon ba tax na sëriñ Modou Assane Fall tund woow ñépp a ko nawoon ci jikkoom ak melokaanam ak yaatoom ak nangoo jël temps bu mu nangoo jël temps nag ci doomu aadama ndax kan ndigal loolu kan la ko xaadim rasool joxoon di ko wax ne soo demee na nga topp ci sa ginnaaw waajur wa te xam ne man nga fa nekkal loolu itam nag taxoon na nag kii di sëriñ Modou Assane Fall nekk nag ku yeewu ku ubbeeku itam nag ci jamono ba tax na waajuroom wi di sëriñ Modou Absa Fall daana seede ne Modou Assane de ku ma jaaxal la ndax naka la def bay waxi nasaraan te man jàngalu ko ko kon nag ku teeloona ubbeeku na la jamono ndax kat cër bi ko waajuram jébbaloon ci lool nag la sax nag ba ni waajuram wa génnee àdduna ci atu 1940 laataa waajuram nag ku loo woon la moom sëriñ Modou Assane Fall ba tax na daana ko baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul mu di fa yóbbu nag ay addiya léeg-léeg itim nag ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul daana liggéeyloo sëriñ Modou Absa Fall waaye sëriñ Modou Assane Fall mii nag la sëriñ Modou Absa Fall daa def jëwriñ ji te sëriñ Modou Assane Fall nag daana ko defee nag ni ko Seexul Xaadim bëggee liggéey boobu sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul daa sas Niass waajuram sëriñ Moodu Absa Fall te sëriñ Moodu Absa Fall daa ko liggéeyloo sëriñ Moodu Asan Fall ñu man cee ràññee këru njaaréem gi di buqutul mu baraka sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul sàkk woon na ci sëriñ Moodu Absa Fall nag ngir mu yeesalaat ko sëriñ Moodu Absa Fall itim nag ginnaaw bu mu jotee ndigal loolu sëriñ Moodu Asan Fall la bàyyee woon ndigal la ngir di ko wax ne nag na dugg àll bi ñu wut xat boo xam ne ni nag day lew waaye nag nañ fexe nag bu buñ jël xatub jàmbur sëriñ Moodu Asan Fall itim nag lijjanti woon na xat boobu nag ba noppi ginnaaw buñ dajalee xat bi nag sëriñ Moodu Absa Fall itim sëriñ Moodu Asan Assane Fall nag la yónni ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul na ba ba xat boobu nag keroog bi ko sëriñ Moodu Assane Fall nag di it ku baax ki sëriñ Tuubaa nag la ko booleel doon ko wax ne itam nag da ngay jël saxaar gi yàpp ci xat bi wala nag dangay ngay luye ay wago nag ci saxaar gi yàpp ci nag lii di xat bi te bépp gaar boo egg nag mag ma nga fay fekk wala sa waajur wa ngi fay fekk nga bàyyee ko nag xat bi ba keroog ngay egg nag ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ñeenti wagoy xat nag la sëriñ Moodu Absa Fall dajale woon ci njiitul jëwriñam bi bi nag di sëriñ Modou Assane Fall ginnaaw bu ñuy indil xat bi nag ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul ci njaareem taalibe yu takkoo takko la ko waajuram jébbaloon bi ñuy jógee nag ci dëkk boobu nag di saakal ngir wut si mi ngi ko doon wax ne soo eggee Louga loo da nga ko nag sa la soo eggee itam nag lum la wax nanga ko def ginnaaw buñu egsee ci gaar bu Louga nag sëriñ Masamba Soxna moo ko teeru sant sëriñ Modou Assane Fall ko ñu jóge waat Louga loo nag ngir wut si njaareem biñ ñëwee nag ba ci dëkk bii nag di tiwaawoon sëriñ Cheikh ma rubba géey nag lañ fa fekk moom nag mu bokkoon ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul nam defoon nag ci Elaaji Masamba Soxna noonu itam nag la def sëriñ Cheikh ma rubba géey ginnaaw tiwaawoon nag lañ ñëw nag ci dëkk bii nag di xombal fekk fi nag ku ñuy wax sëriñ Moor Cuun lam defoon ci sëriñ Cheikh ma rubba géey itam nag noonu itam rek la def xombal nag ci sëriñ Moor Cuun mi sëriñ Moor Cuun sant ko ñaanal ko moom sëriñ Modou Assane Fall ñu doog a jóge xombal nag ñëw nag ci dëkk bu sell bii nag di njaareem ci gaar bi ginnaaw buñ yëgalee ku baax ko wax ne sëriñ Modou Absa Fall xat boobu nga ko doon wutloo ngir mu yeesal këru njaareem gi ñëw na doomam ja nag sëriñ Modou Assane Fall la ko yónni sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag waxoon na kii di Malick Ndiaye mu wax Frey ngir ñu roñ xat boobu nag indi ko ginnaaw bu sëriñ Malick Ndiaye waxee Frey di leen xamal ne ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nee na xat ba nekk ca gaar ba nañ ko ko indil nag ci kër gi te xat ba nag sëriñ Modou Absa Fall moo ko yónni doomam ji sëriñ sëriñ Modou Assane Fall ginnaaw bu sëriñ Modou Assane Fall ñëwee nag ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul sant na ko lool gërëm ko ñaanal ko di ko wax ne nag demal ci sa baay Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina nga dal fa ba tax na sëriñ Modou Assane Fall su masaa ñëw njaareem sëriñ Touba Xaadim Rasul ci loxoy waajuram nag Cheikh Ibrahima Fall Lamp nag la koy booleel mu nekk fa ginnaaw bu ñu wàccee ñeenti wagoy xat yooyu ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul nag yéemu woon na ci lool ba tax na keroog mi ngi doon wax ne Modou Absa Fall de xalima yi ñoom a kalaameeg moom Cheikh Massamba na xasida yi a sëriñ Balla Faali Jeng la ko baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul woolu di ko wax ne nag mu sàmm xat bi te denc ko te lépp loo xam ne ni Seex Masàmba soxla na ko ci na ko ko jébbal xat boobu itam nag wax nañ ne ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bari na itam lum daa bind ci njaareem wara bari na itam nag lu ma Masàmba daa bind ci njaareem ci xat boobu nag lañ daa jëlee xalima yi sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag keroog mi ngi doon laaj ci di sëriñ Moodu Asan Faal ana sa ne jamono jii daal ca njiig Faal laa ko bàyyi sëriñ Tuubaa Xaadim di ko xamal ne suñ borom de xamal na ma ne jamono jii de Moodu Absa nekkul njiig nag jamono ji ma nga ndar géej waaye nag soo delloo nga ne ko na moytu xalima ndax lu mu dogu ñu fekk si ko ci ginnaaw bu sëriñ Modou Assane Fall jógee njaareem nag ba del si waat nag sàkkal la laaj nag ñu ko doon teeru ana sëriñ Modou Absa Fall ñu di ko xamal na sëriñ Modou Absa Fall keroog bi nga fi bàyyi ko wuti njaareem la fi xëyee nag wuti ndar géej keroog nag dafa wuti ndar géej nag fekki fa waajuram ko xamal ne nag sëriñ Touba Xaadim Rasul nee na nag nga moytu xalima ndax loo ci fekk si la ci booba sëriñ Modou Absa Fall nag mi ngi ci ndar géej ci kër gu ñuy wax kër Maawa Sàll ab taalibeem la woon woon mu nekk nag murit saadeex nag moom sëriñ Modou Assane Fall nekk itim nag ku waa tund woowu nag di njiig Fall nawloo mu nekk boroom xaasa ba tax na waajuróom wi daana ko xool ba mu yàgg mu yéemu ci moom waajuróom wi itam daana toog ba mu yàgg mu di ko wax ne lépp lu newoon ci sa maam ja di sëriñ Modou maa Anta Diop mi ngi ci yow sëriñ Modou maa Anta Diop mi nag nekkoon itam ci dëkk bu ñuy wax kër maa Anta daanañ ko jiiñ nag wàlliwu ak nitug suñu boroom waajuróom wi nag di sëriñ Modou Absa Fall nag daana wax sëriñ Modou Assane Fall di ko wax ne lépp lu nekk sa maam ja mi ngi ci yow bi sëriñ Touba màggalug 18 safar wala bi mu soññee mag ñi nag ngir ñuy màggal nag 18 safar booba nag dafa fekkoon sëriñ Moodu Absa Fall nekkoon itam nag ci dëkk bii nag di njaareem ginnaaw bu mu déggee ndigal sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul joxoon mag ñi dafa yónni ndaw nag ngir mu ñëw njiig faal muy xamal doomam ji nag di sëriñ Moodu Asan Fall ngir di ko wax ne nag bis nag nañ ko taxaw wala bis nag heure bu dikkaatee nag nañ koy taxaw ba tax na sëriñ Moodu Asan ci loolu nag la sax nag topp itam nag ci ginnaaw waajuram ba ni waajuram génnee àdduna ci atum 1940 bi waajuram génnee àdduna ci atum 1940 keroog bi ñuy ñaanal sëriñ Modou Absa Fall lu yéeme sax xew na sax ci dëkk boobu nag di Njiig faal ci bëccëg gi ñu doon ñaanal sëriñ Modou Absa Fall ngelaw lu méttee métti nag dafa amoon nag keroog ci bisu ñaan nga ba nit ñu bari nag daw fatu ndax poussière bu bari bi pënd bi muree nag lañ gis ay xéewal ci ëtt ba sëriñ moo Assane Fall mii nag booba nag moo mag nag ci doomu sëriñ Modou Absa Fall yi moo xamal askan wi di Xaadim dëkkoo woon moo doon indi nag am njaalam wala moo doon indi ay berndeem nag sëriñ Modou Assane Fall nag mi ngi doon xamal keroog mbooloo mi ñam yi nag ku ci bëgg a jëfandiku mën nga cee jëfandiku ndax sëriñ Modou Absa Fall kat ay boroomi junne la woon te ci biir junne yooyu nag am na ci ay soxna yum ci dëkkoo woon loolu moo waral nag keroog bisub sarax siñ ko doon ñaanal ci njiig faal biñ demee nag ba ci waxtu añ lañ gis nag pënd bu baree baree baree bari ci dëkk bi ba kenn ku ne nag daw ci néegi fatu bi pënd bi muree nag lañ gis ay xéewal xéewal yooyu nag doomam ji nag di sëriñ Modou Assane nag moo doon xamal askan wi dina wax ne nag mën nañoo jëfandiku nag ca ndab ya ndax kenn nag ci soxnay sëriñ Moodu Absa Fall yi moo doon indi nag am njaalam li nag xew na keroog nag bi waajuram génnee àdduna ci 1940 mu toog nag toogaayu waajuram moom sëriñ Moodu Asan Fall nekkitim na xalifa waajuram bu njëkk di sëriñ Moodu Absa Fall ba ci 1945 mu génn àdduna laataa muy génn àdduna te toog nag toogaayu sëriñ Moodu Absa Fall lu baree baree bari itam nag def na ko ndax dajalewaat na ay rakki boppam nekkitim seen kilifa ñu di ko xoole seen waajur Absa Fall mu fexee timba taalibey sëriñ Modou Absa Fall yi jooyuñu sëriñ Modou Absa Fall lépp loo xam ne nii nag daana ko def nag bi fi waajuram nekkee mu yokkaat ko ba tax na Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke daana ko wax Modou Assane Fall ku ma noppal nga tax na ci atum 1942 Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ñëwoon na sàkkal ginnaaw bu mu ñëwee sàkkal nag doon dem nag ci dëkk bii nag di Ndar Géej dajale woon na nag mbooleem doomu sëriñ Modou Absa Fall ci njiital sëriñ Modou Assane Fall mi di xamal doomu sëriñ Modou Absa Fall yi nag nañ topp nag ci seen ginnaaw mag ji nag di sëriñ Modou Assane Fall di ko xoole sëriñ Modou Absa Fall yow sëriñ Modou Assane Fall nag na nga jiitu nag ci sa kanamu rakk yi ñu lay xoole sëriñ Modou Absa Fall ba tax na ndigal loolu ko Cheikh Modou Moustapha Mbacke joxoon daana ko jëfee mu wéy nag topp nag ci ginnaaw Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke bépp ndigal bu Cheikh Modou Moustapha Mbacke daa jox mag ñi moom sëriñ Modou Assane Fall itam nag daana jot wàllam moom itam nag daana dajale nag mbooleem taalibéy sëriñ Modou Absa Fall yi addiyee yañ koy jox nag mu fobaat nag jébbal Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ngir fas yéene nekk nag murit bu dëggal nag ci ginnaaw Cheikh Mamadou ci 1944 Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke àndoon nag Cheikh Mamadou Bachir ñu ñëwaat nag ci dëkk boobu nag di sàkkal keroog nag wooluwaat na mbooleem njabootu sëriñ Modou Absa Fall gi ci njiitul nag sëriñ Modou Assane Fall di sant nag bu a baax mu am nag ci yoon wi ak jàmbaare nag gu mu jàmbaare ci mi ngi leen di wax ne la ma leen waxoon rek laa leen di wax damaa bëgg na ngeen gën a bennoo gën a ànd boole nag seeni bëgg-bëgg tey it nag maa ngi leen di xamal ne mayu yàlla nag dafa yaatu mayu yàlla nag yaatu googu mu yaatu nag li ma leen koy misaale nag mi ngi mel ne nag waru fas nag di ko dawal yoru koog dem ba ca géej gën nag tànq ca la ngay am ca koog ga dong nag mayug yàlla nag noonu la toll ba tax na nag àdduna lu fi jaral nit nag muy daw bay daanu amu fi ginnaaw kàddu yooyu Cheikh Modou Moustapha Mbacke waxoon sëriñ Modou Assane Fall wala njabootu sëriñ Modou Absa Fall gi taxoon na nag kii di sëriñ Modou Assane Fall laajoon ndigal Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ngir mu dem Saalum nag sanc fa ab dëkk wala mu gor fa ay tool nekk fa nag di liggéey Cheikh Modou Moustapha Mbacke nag joxoon na ko ci ndigal loolu moo waral nag ci atum 1944 googu la sëriñ Modou Assane Fall nag jóge nag ci dëkk boobu nag Ndiéeg Fall ñëw nag ci Saalum ci dëkk bu ñuy wax mbuluñ amoon fa daara mbuluñ googu nag ba mu fay dem nag ñii la àndaloon soxnaam sum dëkkaloon suñuy wax soxna Yaasin Diop rakkam ju ñuy wax sëriñ Cheikh Fall doomam ju ñuy wax sëriñ Moodu Mbend Fall nekkoon ab taawam ak doomam ju ñuy wax sëriñ Mayoro Fall sam-sam ak lu takkoo takku nag ci ay taalibeem wala lu takkoo takkoo nag ci njabootu sëriñ Moodu Absa Fall gi ñu mën caa ràññee sëriñ Madieye Fall ku ñuy wax El Hadji Dame Ndiaye ku ñuy wax sëriñ Cheikh Ndiaye sëriñ Moodu Assane Diop sëriñ El Hadji Massini Ndiaye sëriñ Yatma Ndoye mbooloo moom nag la àndaloon nag jóge Ndiéeg Fall nag ngir ñëw ñëw na ci saalum ci dëkk bu ñuy wax mbuluñ nag ngir taxawal fi daara ginnaaw bu ñëwee mbuluñ googu nag fekk na fa nag ay taalibey boppam yoo xam ne nii nag ci dëkk boobu nag di saalum nag la ñu dëkkoon ku mel ne sëriñ Moodu Maxtaar Njaay sëriñ Demba Fay sëriñ Ngañ Fay sëriñ Gile Faal sëriñ Sàmba Njaay sëriñ Njawar Caam sëriñ Mortala Caam Faas Barigo sëriñ Maawa Jóob Bonjaa sëriñ Ma Yaasin Jóob sëriñ Moodu Sàll sëriñ Ali Sàll sëriñ Ousmane Fall sëriñ Baraama Sekk ak lenn nag ci magi dëkk boobu nag di mbuluñ muy ku ñuy wax sëriñ Moodu Maxtaar Ñang ak sëriñ Moodu Maam Sook bokk mu defar nag daara ju mag nag ci dëkk boobu nag di mbuluñ moo xam daaray tarbiya daaray alxuraanul karim ba tax na diggante boobu nag mu def ci saalum nag ñu baree baree baree baree bari ci waa saalum nag jaayante nañoo moom ndax melokaan ak jikkoom nag ju meloon ndax taxawaayu xaadim rasool nag la fa yore woon ba tax na waa mbuluñ googu xam nañ kii di sëriñ Moodu Asan Faal waaye nag yàggu fa nag diir bu néew nag la fa def suñ borom ñëw ak dogalam bi mu ñëwee mbuluñ googu nag ba def fi lu toll juróomi weer la soxnaam sii nag mu dëkkoo woon di soxna Yaasin Jóob génn àdduna nag ci dëkk boobu nag di nekkoon nag ci dëkk boobu nag dém wuluñu keroog bi soxnaam soosu génnee àdduna sax di soxna Yaasin Jóob kii di sëriñ Moodu Asan Faal sant na ko lool gërëm ko doon wax ne nag kii di soxna Yaasin Jóob nangul na ma jàppalee na ma waaye nag maa ngi sàkku na ci suñ boroom mu fay ko nag yoolub na ku dee ci saayit soxna Yaasin Jóob mi sëriñ Moodu Asan Faal doon na wax ne nag ci saayit la faatu mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di mbuluñ di yar ak di jàngale di defare nag comme nag ni ko yoonu murit nag baaxoo di defee ni mu génnee àdduna ci dëkk boobu nag di ndax bi mu ñëwee mbuluñ ak mu génnee àdduna mutul atum yàlla la wala nag ci at rek lay toll ba tax na kii di sëriñ Modou Gaye Seck bokk itam ci jàmbaar yi toppoon sëriñ Modou Assane Fall daana wax na sëriñ Modou Assane Fall da yàggul mbuluñ waaye wërsëgam ak kàttanam ak barkeem wër na tundu Saalum wa ci dëkk boobu itam nag di mbuluñ nag la tëdd feebar ñu yëgal ko nag rakkam ja sëriñ maxtaar faal mi mbokkal waajur wu jigéen ak waajur wu góor mu jóge nag ci dëkk bii di Njiig Fall nag ñëwoon nag ci mbuluñ doon ko seet si ay fan yu néew nag la def ak moom kii di sëriñ Modou Assane Fall nag génn àdduna sëriñ Modou Assane nag mi ngi génn àdduna nag ci weer wii nag di weeru maamu koor ci atum 1364 ci gàddaay gi ci weer wi nag di weeru maamu koor ci atu 1364 ci gàddaay gi dëppoog nag muy mois de mai ci atu 1945 dëppoog nag muy mois de mai ci atu 1945 moom doomu sëriñ Modou Absa Fall bi ay atam nag tolloon nag ci 48 ans muy ñeen fukki at ak juróom-ñett ginnaaw bu mu génnee àdduna ci dëkk boobu nag dimbuluñ rakkam ja nag sëriñ Maxtaar Fall moo sàkku nag ñu jël sëriñ Modou Assane Fall nag ci dëkk boobu nag dimbuluñ indi ko nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba ci xilaaf ak Cheikh Mbàkke dañ koo yanoo nag ci dëkk boobu nag di mbuluñ ba ci suuf sii nag di Touba ci teewaayu rakkam nag sëriñ Maxtaar Faal ma ko yanoo nag ñu mën caa ràññee ku ñu wax sëriñ Daam Njaay sëriñ Cheikh Njaay sëriñ Njaga Fay sëriñ ma Yaasin Jóob sëriñ Muudu Asan Jóob sëriñ ma Xari Kan sëriñ Yatma Ndooy sëriñ Ngunda Kan sëriñ Bàcc Njaay sëriñ Mbay Saar sëriñ ma Jay Faal di doomam ak sëriñ Maxtaar Faal rakkam ñii ñoo ko jëne nag ci dëkk boobu nag di mbuluñ nag yanoo ko fa ba ci suuf sii nag di Touba ñu jébbal ko nag kam Mbàkke nag moo joxe ndigal ñu taxawu nag kii sëriñ Modou Assane Fall jébbal ko boroomam ci armeer yu mag yi keroon nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke nag mi ngi seede nag seede su am solo nag nag di sëriñ Modou Assane Fall di wax ne sëriñ Modou Assane Fall de noppal xam ne mayuk suñ borom de dafa moo ko taxaw faatoo àll waaye nag na xam ne nag du rus fa mu jëm yii kàddu nag la Cheikh Modou Moustapha Mbàkke seede nag ci sëriñ Modou Assane Fall mi ñu jébbal ko boroomam nag ci tuubaa ci teewaay nag mbooloo mu bare bare bari ginnaaw buñ ko jébbalee boroomam ci Touba ba noppi Mamadul Moustapha Mbacke moo yabal na ku ñuy wax sëriñ Baara Gay Faati Mbooca ak sëriñ Cheikh Fall Xattaaba ak sëriñ Moodu Loo ma jaxate ngir ñu dem njiig Fall nag ñaanal nag kii di sëriñ Moodu Asan Fall ca bisum ñaan ba itim kii di sëriñ Abbas Sàll bu Louga itim fekke na ko ak mbooleem taalibe sëriñ Moodu Absa Fall yi ak mbooloo mu takkoo takkoo takkoo takku ci Saalum sëriñ Moodu Asan Fall nag ay xalifaam nii la tëdd li ko dale ci 1945 ba 2006 doomam ja sëriñ Moodu Mbenda Fall mooy ki ko wuutu ñaareelu xalifa sëriñ Moodu Asan Fall li ko dale ci 2006 2006 la ba nëgëni mooy sëriñ ma yoro faal sam-sam ñuy ñaanal doomam ji di sëriñ ma yoro faal sam-sam suñ borom guddal fanam te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuramam wi xalifa waajuram nag ca jamono jooju kii di sëriñ ma yoro faal di rakam nag moo ko fa wuutu sëriñ moodu asan faal nag amul nag bis nag buñ koy taxawu ci liñ tudde ak màggal waaye nag am na bis nag bu ñuy fàttaliku waajuram wa di sëriñ moo absa faal bis bi ñuy fàttaliku waajuram wa nag sëriñ moodu absa faal mbooleem njabootu sëriñ moodu absa faal gi danañ leen fàttaliku waale ci bis boobu moom mii nag di sëriñ moodu asan faal ci la ñuy ñaan ci ka Cheikh Modou Moustapha waxoon ne xam ne mayu suñ boroom dafa yaatu moo tax mu génne àdduna àll yàlla na ko suñ boroom fay te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ boroom saafara ci darajey waajuram wow sëriñ Modou Absa Fall amiin sëriñ Modou Absa Fall amiin